yi fi jaar yu bari moo taxoon jotaay yu mel ni mënul am di sant yàlla nag ba ñu dem ba affaire yi reprendre di wax nag amul naagu Covid ñëw na fii xam yàlla di ñu dimbali ak suñuy médecins yu xarañ ba tey ñuy wax mu ngi waaj jeex waaye tànk ñoo ngi dégg benn kaa bu ñu naagu dañuy jël masir barrière toujours xam di wax tamit dafa am lu fa xew encore muy mbëkk mi. waaye suñuy rakk suñuy mag jeune Sénégal yu bari des si ñooñu ñoo leen di yàlla xare leen àjjanam parce que ñoom ku ci ne da ngay jógee teraanga moo la taxoon jóg jàppale say waay waaye tamit am na li nga xam ne bu demee bañ koy méngalee du xaru parce que ñi dem teraanga moo leen tax a jóg comme ni ma ko waxee mais li ñuy dem bay méngalee xaru rek lu jata lu jara xolaat la metti na waaye ñu ci am responsabilité dafa bari benn yi parents yi am na ci responsabilité muy nañu bàyyi xam nga jeune chaque jour yi nga xam ni dañuy ne ci kër xam nga amoo njëriñ sa morom nii sa morom naa sa morom na mën na pousser ci jeunes yi ñu dugg ci li nga xam ne waruñ ci dugg puisque ku ne xam na ni dem ci gaal ay million de kilomètres loolu c'est risqué yooyu waajur yi am na ci responsabilité nañu wàññi puisque képp kuy mag ku ne isam la tekki teral say waajur teral sa bopp moo la tax a jóg waajur yi nañu bàyyi xale yi ñuy wax yooyu moo leen tax dugg ci yu bare bare état bi tamit góor góorlu góor lu ci emploi jeunesse bi parce que jeune mooy yor réew ëllëg dañ ci war a taxaw xam nga xoolal leen ay liggéey am na ñu fi yor seen i liggéey amuñu sax fu ñu ko defee tey yu bari loolu dañ leen di ñaaxaat état bi lu ñu doon def ñu góor góorlu ci bu baax ba jeunes yi am fii liggéey puisque juddoo fii màggee fi tekkee fi am na te am na ñi xam ne ñooy fii fii la nekk mosuñu dem bitim réew ku dem bitim réew loo indi lu mu bari bari ñoom ñoo lay wecci kon tey juddoo fi màggee fii tekkee fi am na waaye ku nekk fi yàlla dogalee sa sa sa sa sa sa tedd ñu bàyyi ko xam nga yenn risques yi c'est metti na trop trop xam nga di di wax encore di wax waaye jeunesse bi encore toujours rek parce que xam nga tey ñun fii la ñu nekk yàlla dogal na yi samlax ñoo ngi dem bitim réew di tukki te pourtant tukki am na ñi nga xam ne dañuy tukki mais lu métti métti métti la ñu daj foofu du boo tukkiwul rek sa dara du baax nañu jéem yi samlax takkaat tubay yi xam nga lu ñu yor fii lu mu ndaw ndaw gis nga ñooñu góor góorgóorlu ba dajale ay millions wala ay cinq cent mille di ci passé gaal loolu loo ci def liggéey ci fii mu nekk dara mu nekk dara ba tax na xam nañu bàyyiwaat xel gën a góor lu baax di ñaanal encore ñu jiitu yàlla yërëm leen xale leen àjjana xam nga seen waajur yi fi des yàlla taxawu leen ba bëgg-bëgg yooyu ndaw yi amoon ci defal leen yàlla wuutal leen leneen waaw loolu la ñuy wax di féliciter d'abord président CNG bi lu ci nekk bégaay jaar na ci mais dañ koy dañ ciy kiiwaat rek comme lii gëj am dañuy profiter occasion la ci ñun président CNG bu bees bi muy Bira Sène di ko yéen bi yàlla na woyof li ñëpp di séntu ci moom muy axlu làmb yàlla na woyof toll président Alioune Sarr tamit président Alioune Sarr it xam nga énergie am lépp def na ko ci vingt-six ans yu mu fi nekk moom bi di ko ñaanal mu am leneen leneen lu mu gën Père Balla encore di ko jaale waa Guédiawaye yëpp di ko jaale axlu làmb di ko jaale Balla Gaye numéro 2 xam nga demoon naa ak doomam Youssou Ndour di ko jaale Sénégal yëpp